يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد لا زلت ضيفا كريما سائرا أبدا مكرما بخيرات وسددي Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A ah julli ji yi talibe yi no ngi len di nuyu bu baax no ngi len di siyaare bu gen déggee bayitu xasaayit yu am solo yoyu ngen xamni ndigal bayiko na fam mu bayiko moy kan cheikh Muntaxa Mbàkke khalifa général de mourides yàlla na fi yag lol te wér wàcc ci kan serigne Mor jang jàngkatu xasaayit sëriñ moor Seck soldaaru sëriñ Touba lan lay woote santuk sëriñ Basiiru Mbakke kañ la koy def la 4 janvier lay doon fan lay amee Touba Asalem 2 kan mooy sëriñ Mor jànkatu xasaayit bi mooy ki mamm ni ko foo jëm mu ne ci sëriñ Bamba jël ak ndawam gépp jox sëñ Bamba kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ki nga xam ni kum fat doo faan biti moo fat sëriñ Mor Seck jànkatu khasaid mbok julli ji wote baangi nonu noonu danañ jël kaddu gi jox Serigne daoud Seck jàmbaari Serigne Touba bu nu fi bàyyi ko nu jël kaddu gi jox mam maam ibrahim damal daru waye bu nu fi bàyyi ko nu jël kaddu gi nak jox Serigne moudou Fall waye bu nu fi bàyyi ko nu jël kaddu gi nak jox soxna Jayla mu wote ci soxna yi bis baangi nonu la kan lay doon Serigne Mor delo bum te bay bay ga kan la bis bi Serigne goram baye moom alaaji baara mbaay ca far boot waaye kan la ko dara jaale sëriñ amsatu njaay alali seex mamadul fadal mbakke la kan lay doon mbokk yi nanu ko bokk waaj ak taalibe sëriñ tubaa yi bis baa ngi noog kon sëñ daawuda yow la ñuy jox kàddu gi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo leen di ziar sëñ Mor Seck di leen yëgal cant gu muy lakkaat janvier di ci sant sëriñ Basiiru sëñ Mor Seck mi ci wow mbokki boppam rawat na mbokki dëkkandoom di ci woo ay mbokkam la rawat na waa Daaru Moxti mi ngi leen ciy woo di leen ko yëgal ak waa Touba ak waa Dendey ak waa Louga sëñ moo Seck mi ngi woote ci ànd ak sëñ Basiir amal mi ngi ci woo ñëpp mbooleem fu mbokk ne rek tey am di jàmm di xarit di mbokk di ñëpp rek bàyyiwul kenn. di nuyoo di wax ci kàddu soppe yi ak association bi di leen yëgal bés bi nga xam ne moom nañ baaxoo amal. ci Touba Aslam 2 muy cantuk sëñ Basirou sëriñ moo Seck di ko def mu tombeek le 4 ñu ci woo ñëpp da ci woo soppe yi di ci woo góor jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn waxuñu koñ bee waxuñu koñ bee ñëpp la woo li ko dale ci euh, maire Cekka Jabaay ak mbooloo mi àndal ba ci suñu yaay Jóobe Fall ak mbooloo mi àndal ñëpp ñoo ngi leen woo ñu kenn bis bi la lay doon bu ñu xëyee lay tàmbali day fanaan ba set wecc ñu ngi leen di woo muy liggéey beeg yëpp ñu jàpp ji ko soppe yi nañ ko daan ñu defe ko noonu bu ñu xëyee lañuy tàmbali liggéey lépp loo xam ne moo war ci bis ba ñun ñoo koy def ba ca guddi ga ba ca lépp bañ delloo baas yi ñu leen di woo góor jigéen mag ndaw bu kenn dégg ma barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi euh, sëñ Muntaxa Mbakke di ko ñaanal sunu borom guddal fanam wéral ci ram ba mu yéene ci sëriñ Tuuba lépp mu àggale ko ci barke borom Tuuba ñuy sant yàlla bu baax ci jataay bi di yëgle rek bisi bi nga xani ni sëñ Mor Seck jànkutu xasaayit dëkk fii ci koñ bi te am leen teeg mbooleem jànkati xasid yi na ci koñ bi ñëpp it am yéene ci moom ngir ab yaram waaye ak i waaye tam ab joxe cëram mate ko sëkk ci ñëpp kon ci turu Mouwahiboun Nafi bi nga xam ni moo lëkkale mboolem jànkati xasaayid yëpp ci njiitul sëñ Xaadim Guèye ak sëñ Cheikh Diop ak sëñ Cheikh Mbaye Diouf ñu ngi leen koy yëgal bu baax di wax ni képp koo xam ne dégg kàddu gi mooy woote bi jànkati xasaayid yëpp ñu ngi leen ciy woo ñu ne ci réew mi yëpp waaye nag te dégg kàddu gi na xam ni woote bi mooy woote bi nga xam ni moo lëkkale woote bépp ci jànkati xasaayid yi ci turu Mawahibou Nafih bépp kon loolu mooy kàddu gi jëm jànkat yi koñ bet ku ne xam na ni am na ay daare alxuraan yoo xam ne ñoo fi nekk ah, duñ tudd yan di bay yan waaye ñëpp ñi nga xam ni daaloon ci ci ci koñ bi rek ñu ngi leen di woo ci bés bi eh, di ñaan képp koo xam ne teew nga yàlla na yàlla faj say aajo ci barke xasaay yi nga xam ni sëñ Mor moom la am waaye ci barke buntam ci sëñ Tuubaa di sëriñ Basiru asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu yéen mbokki soxna yi di leen fàttali bisu sëñ Mor Seck bi bi ñu defal fii ci Touba Asalem 2 di woo mbokki soxna yëpp nag bàyyi ma kenn ñu fay soxla seen teewaay ngir ñëw jàpp ci bis bi rek comme nañ ko daan defee. ñuy fàttali soxna yi muuraay ak col gu yiw gi tey xam ne bisub xasaayit la tax ku ne xam na ne fu ñuy jàngi xasaayit la doon fay soxla te tey defaraat toogaay bu baax yéen nak yi nag bàyyiwun kenn bis moom suñu bi sax Mor Seck dafa doon ko xamanteni ni ñun waa Touba Asalem de mbokk nañ ka ñepp ndax yaatal nañ ci ñepp di wax nak bis baas bi ngeen teel ñew ci baas bi te def sañ say baax te selal ko bu baax bis baa ngi kañ lay doon la 400 vie bu ñu xeye daanu jang alxuraanul karim bu nu demee ba digg bëccëg Serigne Mor def bernde bu ndeme ba takusanu nan ka Serigne Touba. 22h ñu dugg baas def cérémonie officielle ak taalibey Serigne Touba yi daal di nag ànd ak jànkatu xasaat Serigne Touba yi. kan mooy Serigne Mor kooku moo yaakaar Serigne Basiru kan mooy Serigne Basiru kooku moo nasru yu Saalum jëbbal ko Serigne Touba nii leen ko maalum bu ngeen xamul Basiru ma wax leen kii Basiru moo nu wutal gaal gu jëm ba aljana na soxna Faatu Madu Maam ja Serigne Mor jànkatu xasaayit mooy woote bis bi tudde ko kan Serigne Gora Mbaye jankatu xasaayit waye dara jale ko serigne am mbay mbaay am satu serigne touba ji bis bangok ngoog nanu ko waaj la 400 weli don ak talibe serigne touba yi asalem 2 alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bukaa loolu ma jooyloo sëriñ bamba ko def mu doon murid yee te mooy donoom mooy njàqare yi mariir yi ca jile waay ñàkk ko doy nag jaaxle am ngërëmam min qablu doy nag baaxle